ayca sama gaay ñu ngi leen di jaar bu baax tey nag ñun ñoo leen ko digoon actuellement ñu ngi diwaanu euh, Firenze euh, euh, xam ngeen ne dige bor la dañ leen waxoon ne bu ñu jógee Brescia dañuy ñëw Firenze xool ba xam ñoom ñaar kan moo mën mais li gis ah xeeñ na neex léegi nag ñu ngi taxaw ak koo xam ne présentatrice la animatrice la lépp la ci programme bi dañ koy nuyu mu présenté leen programme bi ñu doog a dugg xool sañ sa xale jigéen ñi salaamaaleykum Khady. maaleykum ñu ngi lay jaar. dellu ziar. tur bi naka la. xari jaxate. fiñ la fekk mooy fan. Florence Firenze. waaw lu xew fii ngénte la wala ceet. <laughs> ngénte. xoolal sama caméra bi bu baax nga wax ak gars yi. waaw ñoo fii tey ci concert Wally Seck bi. ñi ngi bi ah. fii sañ na daal loo gisagum Mbaara. waaw mu ngi xeeñ neex tuuti rek. tuuti est-ce que seetaan nga waa Brescia. seetaan naa ne du ñu seen morom. Ah. suñu amal xale xale jigéen yaa ngi leen doon tendance seetaan nga tendance. seetaan naa ko mais ñun xamuñu wax dañoo xam jëf. Ah, da ngeen di jëf waaw. Ah, cameraman <laughs> jëlal jëlal jëlal ci suuf. lii maa ngi doon wax njool mu ndaw waaye lii mooy njool mu mag. waa kay léegi lu gars di xaar tey. waaw ñoom ñoo ngi leen di xaar ñoo ngi xale jigéen yaa ngi dugg lépp a ngi baax. tey jàpp nga ne organisation bi jaar na yoon dinañ xaar lu doy waar tey. waaw organisation bi jaar na yoon rek lañ la ñuy xaar. incha allah incha allah. dinañ la fekk ci biir. waa di ngeen ma fekk ci kaw pëjum bi incha allah. wante yow lu baax. lu baax a baax. li nga def xeeboo ko. musuma ko xeeb. xam nga ma man. ma la. dafa soxor dafa soxor de. Eh? xawma la. xamoo ma. non non. Ah, mais nag mosuma gis. mosuma la gis. xamoo ma xaw ma la. xamoo ma xaw ma rombe bu ma nuyu.